imaam yi ak sama mag yi fi nekk di am kontante bu baax ci xale yi taxaw ak jigéen ñi nga xamante ni ñoo fi nekk ci wuy si ñu wuy si doomi dëkk bi li mu joxe nga xam ni du tey dong la ko mus a def ay yoon yoon mi ngi koy def di am kontante bu baax ndax euh, li ma waxoon ci tabaski gi rek mënoon naa dem yóbbu alal feneen di ko pasar pasare ci àll bi nekk sàmbalar mais defu ko dafa geesu ginnaawam ñëw di dimbali askan wi lii bu ko ñi ñi nekk ci gouvernement bi ñëpp buñ ñu ko doon def kon kenn du mer assi moom gàcce ngalaama noo ngi am kontaante bu baax si moom di ko ñaanal yàlla di ñaanal président de la république fu mu bëgg a jëmee réew mi yàlla na ko yàlla àggaleel ndax lu toll nii ñetti nag mu andi ko may ko askan wi ak lii ngeen gis ci taabal ji nii lépp muy li ànd ak ndawal gi loolu ku ko def alal ji bari nga génne te ay yoon yoon def na ko ñun daal li ñuy ñaanal assise mu yokk gouvernement bi yokk ba nga xamante ni dinaa maanaam am doole defal ma fii sama quartier poste de santé ndax lii lii mu commencé nii dañ koy ñaanal yàlla mu gën a am doole ndax bu amee doole ñun daañu am doole ndax kat fàttewul zone bi yëpp te li ma leer mooy du dëkk yi dong te ay euh, fii lu mat 36 villages a ngi fi yoo xamante ni incha allahu rabbi ñëpp dinañ ci gis seen bopp bu soobee yàlla ndax assis baax na gore na ndax lii bu ko bu bu gorewul woon baaxul woon du ko def kon ñoo ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla jàppale gore daal lañ bëgg encore une fois li ma koy ñaan daal mooy ginnaaw bu liwee na fexe ba jàpp ñu poste de santé ndax quartier bi amul poste de santé te poste de santé bi ñu nekk dafa sori muy kër suyum ndooy boo feebaree guddi bala nga faa dem da ngay xaw a sonn te fii yàlla dogal na macha allah dëkk bi yokku na te quartier bi ñetti dëkk la mais nag dafa am ginnaaw loolu dax ñu di ko daal nu mu nu mën a jàppalee ci poste de santé bi daal nan jàppale bu baax di sant nag ki nga xamante ne mooy responsable fi nekk Maguette Ndiaye ndaxte bu noonu yàcc dara du sotti waaye wax dëgg yàlla jàmbaar la moo xale yi ñu ñu mu àndal ay ñoom ngoon ak far seen yi ñëpp ak jigéen ñi vraiment xale yu góor yi sama xol sedd na guy ci ñoom ak ba waa kipp kër mbay jaxate kër ma maram ñëpp ñi ngi topp si ginnaawam kon sunu xol sedd na guy salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu jërë ngeen jëf asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim wa sallallahu wa sallama ala seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ina lahum bi ixsaani ila yawmi din assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki julli ci maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu ak man nag maa ngi tudd imaam Ibrahima Faye jóge kër Mbay jaxte di feeñal sunu kontante ci sunu diggante ak kër Mudu Njaay nga xam ne fa tabaarakallaahu lépp loo xam ni mus na fee ñëw fii ci dëkk bi boole nanti dëkk yi yëpp di am kontante ci Abdul Aziz Mbay mi nga xam ni moo fi andi teraanga bu tedd bii tey di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala yàlla dolli suturaam te dolli teraangaam te gën kaa jubóole ak Macky Sall mi nga xam ni moom la àndal di liggéey di am ci chef de quartier Alaaji Ngam Njaay mi nga xam ne fa tabaarakallah moom moo jiita carte ji ci rafetalam ci booleem ci bennoom kon ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla jàppale ko ci kayam gi ba li mu namm yëpp yàlla sunu borom subhanahu wa taala wuutu ko ci defar ko ca namu mu gën a rafete gën a baax ñun nag leen koy waxe fii imam Pambay moo fi waroon a taxaw waxal boppam ci quartier Kër Modou njaay bi kontaanteem ak mbégteem waaye dafa am ngant moo tax teew siwul sunu baay Mandiki Diop waroon a taxaw ni Ibrahima taxawal ñu waxal ñu waaye mag ñi ñëpp kontaan nanu kontaan nañu ci suñu jigéen yi nga xam ne fa tabaarakallaahu ñoo nekk ci dëkk bi dina jàppale dina suturaal dina defaral kon jigéen ñi it yal na yàlla barkeel leen yal na yàlla dooli seen sutura yal na yàlla dooli seen taranga di leen xamal ne màggat ma ngi rafetal bu baax ñaan yàlla yal na ko yàlla gën a sàmm yal na ko yàlla gën a suturaal yal na ko yàlla gën a jàppale barke bi sallallahu alayhi wa na yàlla ma ñu fekke waat waxtu wi déwén te bu dewen na mee ñaaw yal na mel ni ren barke bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu naa Asis Mbay waaw ndax moo juddoo ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi di doomu dëkk bi dikk ci dëkk bi nag pour war a defar dëkk bi nu am pas-pas bu tol ni jàppale ko ba mu dëgër fu mu teg tànkam dinañ fa teg sunu bos ndegam soom na yàlla di ko sant nag te di ko gërëm lool ndax lii mu nu defal moom xeeb na ko waaye nun lu rëy la ci nun ah, korite jox na boroom kër bu ne ñaari ginaar ak 10 000 ak la cay ànd muy ndimbal lu baax ci ñun tabaski ñëw mu jaar ko fa muy ndimbal lu baax ci ñun pombiteer soble dara manquéwul muy ndimbal lu baax ci ñun ndax la mu nu yóot ku ko bëggoon a uti tey boole kook jëndim tabaski dina metti lool waaye tey kenn xalaatul dara ndax Aziz mbay defar nanu defal na nanu lam nu war a defal ba mu baax kon yàlla miy jàppale te ku mu jàppale nga jàppale wu na nanu yàlla jàppale jàppale ko mbooleem jullit bu ko yéene ndaje mi tey li ko waral xanaa jël tànkam teg fu baax xam ne juddoo na ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi di doomu dëkk bi war a defar dëkk bi ndax lu fi manqué moom la fi manqué kon bu fi nekkee war a ma war a mën a matal yàlla nag mooy matali lépp waaye yàlla miy matale yàlla na ko yàlla jàppale ndax yaakaar naa ne fi mu teg tànkam su ko teggiwul lépp dina mas a mat ndajeem tey mii gis nga fi li mu defalaat ndugg na ba mu baax yeewal ñu ñetti nag kenn xalaatu ndugg kenn xalaatut la muy àndal nu di ko sant lool nag di ko gërëm di ko ñaanal gudd gi fan gu ànd ak ak wér yàlla yokk man-manam ak am-amam ak ak wéram ak mboolem jullit bu muy àndal ci màggug yàlla li may dénk waa dëkk bi ci sama bopp laay commencé ndax li may commencé ci sama bopp mooy fu mu taxaw bu geestoo yem ci man te fu mu taxaw bu gestoo yem ci man dina yem ci waa dëkk bi ndax yaakaar naa ni ndégam ka la jëfalut mooy taxaw gestu yem ci yow estament kay ka lay jëfal kon assis lu mu bëgg ci nun suba ba ca ngoon noo ngi ci taxaw su euh, sunuy tànk ak nunu ci mën a taxawe noo ngi koy sant di ko gërëm nun ñii jeegi dëkk bi ak boroom këri dëkk bi ak sunuy doom li nuy yokk daal ci li mu jëfal xale yu ndaw yi góor yi ne ci dëkk bi xam ne amaguñu métier ñooñu ci ñooñu la war a taxaw dolli taxawaayam ndax taxaw na ba pare waaye ci la war a dolli taxawaayam waaw noo ngi koy sant nag te di ko gërëm te di ko ñaanal yàlla fi mu teg tànkam yàlla na dëgër yàlla gën ko koo dëgërël defal ko gudd gi fan ko ànd ak wér ak mbooleem jullit. tula man maa ngi tudd Ngone Gningue responsable APR ci Kër Modou Ndiaye mbirum jigéen ñi daal maa ko yore. waaw ndajeem tey mi mooy jàppale bi nga xam ne Aziz mbay mu ngi koy jàppale Kër Modou ñaay moo waral ndaje tey bi jàppale bi muy jàppale jigéen ñi leen ci mbirum tam bi loolu moo waral tey jii daje tey bi a ah, déedéet dañ njëkk koo def tey nag def na ko ay yoon yoon yoonu yoonu yoonu yoon lim ko def mënuñu ko lim bari na torop macha allah waa su waa dëkk bi nag kontaan nañ ci torop torop torop ndaxte euh, résumé bu na jaar na fi mais résumé bi li ñu yëgee ñun suñu bopp ci moom wax dëgg yàlla mosuñu ko cee yëgee ci benn régime kon nag ñu ngi koy ñaanal di ko ñaanal yàlla di ñaan euh, président Macky Sall lu muy yéene réew mi yàlla na ko ci yàlla yeggaleel lépp lu mu ci mébét yàlla yeggale ko ci kattanam ak màggaayam waaw mu gën a yomb ci moom ba ñun ñu gën a gën a yëg suñu bopp ci gën a gën a gën a yëg ndax ni ngi koy yëg mais mu gën a yokku dañ ciy sant di ci gërëm voilà. nag def bu ko defee wàccu lu yoon ndaxte papaam dëkk bi ku xëyaan feebar suba boo yeewoo moom nga njëkk a gis moo ku fi ñaani jabar moo la ko ñaanal li taxaw ci taxawaay bu rafet rafet rafet lii bu ko defee dafa dafa deret ci deretam la ne ci deretam la ne bu ko defee daf ko war a def bu ko defee daf ko war a def te kon bu ko defee ni sant yàlla rek lañ ciy def te ñaana ko mu gën a jëm kanam gën a jëm kanam ba nit ñi gën ko yëg alhamdulilah macha allah. Maguette Ndiaye responsable APR euh, zone nord. lan moo tey. waaw euh, dañ siy sant yàlla bu baax di si sant euh, sunu frère. le ministre conseil spécial du président en TIC monsieur Abdoul Aziz mbay bi nga xam ni moo waralaat lii defoon na defaat encore te yaakaar naa ne am na yeneen programme yoo xam ne aussi ñu ngi nekk sunu kanam lii mu def tey mooy comme ni mu ko faral defee tabaski bi ni mu ko faral defee korité tamxarit bi encore vous voyez donc jënd na ñetti nag pour euh, quartier bi euh, jënd na. ay denrées alimentaire encore pour le quartier euh, je pense que loolu moo waraloon waa quartier bi ñëw tey wuy si euh, mbir mi nag yaakaar naa ne yamatul si quartier bi yaakaar naa ni génn na sax quartier bi parce que am na yeneen dëkk yi nga xam ne ñu ngi nekk ci ginnaaw kër Modou njaay lu mel ni ay Thialé kër Mam Maram Jasab ak yeneen dëkk yi nga xam ne ñoo ngi fi tey euh, kër Assane Ndiaye ñu ngi bénéficié wu si action yi nga xam ne monsieur le ministre Abdou Aziz Mbaye mi ngi koy def donc ñu ngi ko si remercier bu baax di ko sant bu baax. ci bon bu waayeeg man euh, daf may tere sax man ma wax si wàllu politique sax action yi dafay tere sax man ma koy wéer sax si politique parce que li mu ko faral di wax mooy Kër Modou njaay que su que ñu ànd ak président Macky Sall que ñu bañ a ànd ak président Macky li ko war mooy mu def fi waaye yaakaar naa ni génn na Kër Modou Ndiaye donc yaakaar naa ni si sens boobu mën nañu wax côté politique. Euh, di wax ci action yi nga xam ni moom la def ni mu ko defee parce yaakaar naa ni euh, Kër Modou Ndiaye ci commune Thiès Nord la bokk te lii muy def nii dans les normes le maire de la zone nord moo ko waroon a doxal tey fii mais gis nañ war nga dox war nga def loo xam ni similaire na ak bourse familiale président monsieur Abdoul Aziz Mbaye mi ngi ci tànk yooyu gis nañ ne mi ngi def bourse familiale am ci zone yi nga xam ni waxuma kër Modou Ndiaye mais lii daf koy def ba ba ba ba xombal mi ngi koy def ba taaxi kaw mi ngi koy def ba parcelle mi ngi koy def ba ba ba nji njil njilaax ba ba kër sa Sayib Ndoy quartier yëpp ñu ngi ko fay def te yaakaar naa ni loolu dafa jóge si moom mu koy dugal si askan bi yaakaar naa ni moom mi ngi jàppale askan wi comme ni ko président Macky Sall sentiré ba tënk tënk ko si biir plan euh, Sénégal émergent je pense que dafa am ponk bu am solo bu nekk si biir muy social bi te yaakaar naa ne sociale bi kenn juutiwu fi responsable mel ni Abdoul Aziz Mbaye donc may wax ñun dañu soxla ay responsable yu mag yu mel ni moom parce que amul xaar ma yàlla kii ñun la àndal wala kee ñee la àndal dafay def te parce que président moo ko sant loolu président moo ko digal loolu te président de la république Macky Sall ku ko xam-xam ni si tànk yooyu la nekk te Abdoul Aziz Mbaye mi ngi si tànk yooyu donc ñun dinañ ko pousser ba action yi nga xam ne mu ngi koy def si Kër Modou Ndiaye ak zone yi yëpp mu def ko ba biir cees muy law ba fépp fu ñu taxaw ku sa bët xong Abdou Aziz Mbaye ñëw fompal la ko. mébét yi euh, loolu bokk na si. ah am na yaakaar naa ne aussi am na yeneen yoo xam ne aussi suñu responsable yi cité nañ ko fii lu mel ni ay poste de santé lu mel ni suñu clôturer suñu armères yi. Euh, affaire école bi aussi je pense que le ministre Abdou Azim mbay jël na si ay engagement yoo xam ne incha allah bientôt dinañ ko commencer yaakaar naa ni ak euh, juma bi nga xam ne ñi ngi koy commencer yooyu aussi yëpp ñi ngi ko siy woo di ko si gën a tàllal suñu loxo mu gën ñu si jàppale te yaakaar naa ni lépp loo xam ni jàmbat la boo xam ne nekk na fii incha allah dina si dugal loxoom. ñu diggante Abdoul Aziz mbay ak la première dame Marème fay Sall. yaakaar naa ne ñun ñëpp xam nañ seen diggante bu baax te yaakaar naa ne si cadre boobu si lay ànd ak moom di liggéey ñëpp xam nañu Marème Faye Sall ku social la gis nañ li muy xam ni moom lay def euh, si wàllu social à Dakar donc ñu ngi koy gën a tàllal loxo encore à Thiès et dans les villes environnantes aussi ñu gën ko si tàllal loxo mu gën ñu si jàppale si loolu yaakaar naa ne Abdoul Aziz Mbaye mi ngi si tànk yooyu aussi ah xam nañ digganteem ak Marème fay Sall bu baax donc yaakaar naa ni en gros loolu la ñu mën a wax si loolu di ko encourager encore di ko di kontaan bu baax aussi si confiance bi nga xam ne moom la Marème am si moom di kontaan bu baax aussi si confiance bi nga xam moom la ko président de la République jox yaakaar naa ni loolu la ñu bëggoon si doomu dëkk bi loolu la ñu bëggoon si doomu Thiès am responsable boo xam ne non seulement biir quartier bi mais biir Thiès aussi képp ko fi dina la wuy yaakaar naa ni loolu noonu suñu woote dina ko dégg te dina àgg ba biir Thiès incha allah